ami internet Télé Sénégal ñu ngi leen di nuyu am mbégte teewaat tey fii euh, pour un nouveau concept bu tudd sama site sama koñ alors on va parler de tey ci ay sujets yu yaatu on va parler d'actualité on va parler de politique on va parler de lépp mais tey y sujet bu ñu gën a soxal parce que euh, ça s'est passé récemment euh, gis nañ ko ñu ñëpp ñaawlu ko mu xewee Dakar mu xewee li collège Sacré-Cœur ay vidéo lomotif yu doy waar yoo nga xamante si ay élève ñoo ko doon def jaajëf Joe di la nuyu di la sant gaan franchement waaw mais au fait man affaire bi daf ma semblé un peu étrange quoi parce que ay xale yu ndaw ay xale yoo xamante ne bon des filles yoo xamante ne à peine 17 ans 18 ans mais am na yoo xamante ne man je me suis dit que loolu parents yi war nañ ci veillewaat bu baax munoo tey jii ñafe sa àdduna lépp inscrit sa élève sa doom yóbbu ko école mi jàng gars yi nekk foofu lu dul nekk foofu ay affaire rapport sexuel machante du n'importe comment selon yow le problème ci ci ci ñan la parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni loolu bi mu amee dañu dal ci école yi. naan waaw école yi yaratuñu nangam ak nangam ñeneen ñi ñëw ne parents yi la ñeneen ñi ñëw ne parents yi yar nañ mais mbedd bee yarut yow selon yow. Mhm. macante boobu ngay wax. <laughs> c'est quoi le problème fan la jógee. waaw mais bii bi mooy mooy li mooy parents yi tamit am nañ si part de responsabilité parce que jur sa doom neex na ba nga koy fonde di laalanteeg sa soxna ba affaire bi di ñëw loolu c'est quelque chose de bien sant yàlla. mais léegi soo demee ba am sa doom inscrire ko man je me suis dit que à chaque fois war nga mën a di veiller si moom. élève bi saa yu jàngi ngay xam di xool téléphone am parce que léegi à l'âge de 17 ans booy ay iPhone lu ne la ñuy loo xamante ne seen i moromu papa sax téewu ko. mais le problème mooy parents yi tey. Mhm. par exemple yi ci bëri booy xool amatuñu temps yar bi. je veux dire tey ku ci yeewu 6 heures du matin xëy nga nga sa saak dem balaa ngay dugaat sa kaale 19 heures kooku amul temps di xool doom ji ci lu mu nekk ak lu mu nekkut. et am na ñoo tamit dañuy yar ci biir kër gi mais booy génn nekk seen kaana bopp. waaw waaw bon mooy la may wax rek on vit dans un monde à l'envers jamono bu ñu nekk dafa doy waar. Mm-hmm. mu nekk euh, si côté góor si côté jigéen quelque soit. dund bi métti na xam nga bon coobare bi doy na waar de telle sorte ni que élèves léegi jàngatuñ sax. Mm-hmm. dañuy ñëw xam nga sonal seen parents yi pour ñu inscrire leen dugal leen école boo am xaalis. Mm-hmm. nekkuñu fa lu dul tey jii juste toog foofu noonu xam nga genre. di foo. affaire de sexe affaire de yooyu man loolu man bon franchement jàppewu ma ko loo xamante ne bon des choses yoo xamante ne franchement lu nit bon lu mu tay la mais c'est juste que parents yi mooy lu may waxaat encore une fois ñoom ñoo war a veiller seen doom parce que quel que soit alpha même boo dem liggéeyi sax mais war nga a tey ji woo tey ji école ba ay doom lii ak lii ak lii xel pour lii surtout jigéen xam mais loolu nag moo amatul parce que tey da ngay xool ci ne parents yu bëri kuñ ci laal sa doom nga nga effectivement loolu tamit déjà beneen aspect dañuy laal sa doom nga plainte du genre kon ce qui veut yow dafa mel da nga jur sa doom lu gars naan jur doom saan saan xama man da ñaanuma yàlla loolu moo tax ker dama fi toog expliquer les gens ne man de su ma yàlla may doom bëgg naa sax am njabootu góor mhm. parce que lii mooy tax yow dootoo amati fit sax te jigéen dafa am chance góor a doy waar de ñoom ñoo fi nekk di yóbbu booy appartement ko wax waaw dafa difficile mais jigéen une deux tey yi vite boo jaadee fii jaadaat fii ànd ak benn góor àndaat benn góor une deux ñu naan la caaga la lax du genre lu saltel daru jigéen daal dafa salte ko ma bàyyi gars yi ñu sànni seen kàddu tey am nañ fi beneen jeune ah yow yaa fi teewal jeunes yi tey bàyyi la nga nuyu gars kon salaamaaleykum salaamaaleykum sama gars yi. waaw ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ziar ah xam nga. dëggantaan waaw. léegi yow lan mooy sa gis-gis en tant que jeune ci li nga xamante ni moom moo xew ak ak ak ak vidéo yi. mooy ak vidéo école sac bi quoi. sac bi mais man. Mhm. en tant que man man si vidéo bi du ma gis ko mhm. man dama jàpp ni ñooñu xelu xale la yor. dëggantaan. Hmm? dëggantaan parce yow ku. teel micro responsable quoi. Hmm? Hmm? nga doon def loolu gars yi di la vidéo. nga nga gis ni gars lay vidéo nga kon ne. dëggantaan. Hmm? non mais booy bi man dama kontaan si moom. kan ci yow bu góor. <laughs> la war a nga kontaan si moom. parce que booy bi. ah <laughs> non pas non non non non. jantal la quoi. non non non non non déedéet parce que booy bi booy bi. Ah, booy bi doomu naa non booy bi parce que booy bi dafa booy booy bi. saan nga vidéo bi. non non non non vidéo bi man eh. <laughs> saan nga vidéo bi waaw non vidéo bi man man dama ñëw gars yi wax ma ne non mais non mais loolu. non affaire góor la. ah yow donc tu trouves normal. vidéo ah. boobu noonu yow da nga da nga gis ne c'est normal quoi. waaw loolu yoon la quoi xam nga man noonu laa gis vidéo bi yoon la. kon yow yow yow yow boo ko defoon du dara ci yow quoi. non non non man yooyu moom du ma ko def quoi. mais je veux dire tey tey tey koy garaawalee non vidéo bi lii lii man vidéo bi gisuma ko mais xam naa ni ah booy yoon la def parce que jigéen du ñëw ñàkk fayda ah garaaw bi ba bëgg a dee ñëw jox la boppam ah yokku góor gi naan ko non booy solaatal sa tubay affaire yooyu la. mais jigéen ñi ñoom ñoo war a am fula seen bopp gannaaw bi. Mhm. ah lool waxtaan loolu ah, nga tee sa bopp ba ba bi nga am jëkkër. dëgg la mais yow léegi xale yi ku jug dégg nga kii ëmbal nañ ko kii déviaté nañ ko xale yi dugg na fii jàll fii mais gannaaw bi loolu loolu loolu ça c'est jamais vu gannaaw. yow daal yow daal kon tu tu trouves ça normal quoi yow maa lay maa lay ziar. yow lay ziar ñu ngi rafetal naka naka naka yitte ah, seen teewaay fii. dëggantaan leen nuyu ñëpp di sutura a waaw mhm. ah, dëgg la ñu dafay Dakar la ñuy liggéey quoi. Mhm. ñi moom xarit mhm. la ñoom Anza. gars gaañ lañ. dëgg yàlla moom ñoom ah, fi liggéey Malick quoi. vidéo bi nag seetaanu ma ko quoi man nag pour man nag réseaux sociaux yi ñoo yàq léegi jeunesse bi quoi. surtout parce que xale yi jigéen ñi moom si réseaux sociaux yi la ñuy nekk gis dañ ko bëgg a imposer xool ne ni ko di kii réseaux sociaux say talu ñu toppatoo seen doom mm-hmm. dañuy bàyyi la ñu yor téléphone ba benn heure bi mm-hmm. duñu xool ndax seen doom tëdd na wala tëddul affaire yooyu mm-hmm. xoolal loolu dañuy war a parce que lépp doom bu génnee da nga xool ban endroit ban endroit parce que sa doom gis nga ko melekaan bi mu ngi ñëw indi la ay téléphones seer mu ñëw indi ay cheveux seer mu ñëw di sol yëre yoo xam ne yow yow yow mhm. mi papa mag yaayam joxee lañ ko mhm. mais yëpp dañ ko war a lijjanti mhm. sa doom tey bu indee benn téléphone bu seer wala benn yére wala benn sëba nga war a topp nga ne ko ah ka loolu ko jox foo jëlee lii foo jëlee lii wante yi daal léegi moom dafa mel ni léegi moom dañoo bàyyi booy seen sago booy nekk réseaux sociaux yi leen def leen neex léegi booy sax léegi ñoo gën a sax xam sax léegi parents yi lépp quoi. Mm-hmm. man de ñoom ñoo xama rek lu gars yi di wax lu gars yi di wax rek léegi moom dañoo toppatoo xale yi dara. Mm-hmm. xale yi léegi ba seetloo jàngatuñu. Mm-hmm. en plus tamit duñu déglu conseil. ñoom ku nekk sa magu bopp nga léegi si kër. léegi da mag sa mag day bëgg wax wala sa sa mag sa bu jigéen di bëgg wax. parents yi naan ko ay bàyyi ko mais da affaire yooyu quoi. Mm-hmm. mais war nañoo xoolaat jeunesse bi quoi. Mm-hmm. war nañoo xoolaat seen taxawaay affaire yooyu quoi. Mm-hmm. maa ngi remercier bu baax. mais rafet na mais lom dégg nga dégg nga wax. waaw oh, dégg naa wax te li wax yëpp donc dëgg la quoi. mais man li ma gën a jaaxal ci wax ci mooy. dama fi am benn jeune boo xamante ne tey moom moo fi teewal jeunes yi. mais moom il trouve normal vidéo bi. non c'est pas normal que parce que tey jii nii non non non parce que tey euh, c'est pas normal quoi. <laughs> bu ñu ñu en tant que góor ak parce que tey jii bu fekkoon ne ku ci nekk. Mhm. ki nga xam leen koo def quoi wala mu nekk sa sœur du la neex quoi. surtout loolu lu dëgg ah. donc na booy dellusiwaat seen xel quoi ndax tey yu bëri amoon na bu ñëkk quoi. Mhm. comprendre nga mais xëy na léegi internet moo tax tey lu am lu lu lu ndaw ndaw rek xam nga day yomb ñëpp jot si quoi. jaayef gars yi a mhm. day yomb ñëpp jot comprendre nga donc sutura moo fi bëreetul léegi quoi. aussi léegi. nit ñi léegi dañoo tegootul seen bopp dañoo dul xalaat quoi en fait. Mhm. parce que tey boo def dara da nga war a xalaat ëllëg. Mhm. parce que la la vie àdduna dafa gudd. Mhm. te tey ku si nekk ñaan nga yàlla dem ba nekk sa di gérer di diriger. du comprendre kon tey ji nekk lépp def rek xam nga. bu mënul ñàkk na ànd ak sutura quoi. Mhm. foofu dañuy ñëwaat juste ci ci li nga xamante ni moom moo di moom moo di explosion euh, réseaux sociaux yi dafa mel ni am na ci tamit part de responsabilité. waaw mooy li mooy li mooy li ñu wax léegi gën a jox booy fit. waaw mooy li doon wax léegi on ñun suñu genre gi mhm. dañ daan làqu def suñu yëf waaw du ko xam waaw nante yi boobu internet bëriwul boobu dara la ñu dugg te kenn du gis vidéo yi billaahi booy léegi yaakamti nañ tey tey yi nga nga nga sol benn affaire bu sexy romb waaw léegi moom dafa mel ni exposé wu sa wala doo ne bon doo donc mhm. view quoi doo am mhm. parce que tey jii nit ki pour bu njëkk si luñu daan si luñu daan euh, si luñu daan jëlee exemple mooy genre tey jii diw mi kat tey ji xam nga ñëw leen ñëw leen euh, ñëw leen ci la bokk ñëw leen. waaw ñëw leen toog. ji xam nga genre ñun exemple yi naan jël tey ji si nit ñi mooy. diw doomu diw bi tey ah xool fu jaar réussir na genre yooyu noonu comprendre nga. Hmm. mais tey ji exemple yëpp ñu jël mooy tey si nit mooy genre. lu bon quoi léegi roy lu bon dafa mel moo gën a baax. moom la gars yi gën a bëgg ko roy lu baax quoi. Hmm, hmm, maa nag am na ñoo xam ne ñoom lu baax lañ bëgg. dëggantaan comprendre mais ñu bëri tamit ñu ngi dund loo xamante ni xëy na ñoom mais yàlla mm-hmm. peut-être da leen weer quoi. Mm-hmm. comprendre mm-hmm. mais ndépp looy dund rek xam nga moom li ma la wax toujours rek. yaa sutura sa bopp quoi balaa daray xew. comprendre nga. daray xew parce que la vie daal dafa rek loo xamante ni dafa gudd te tey ji ñaan nga yàlla kenn ku ne tey ji boo fi jógee sa nettali rafet quoi. waaw parce que yàlla dafa bëgg sutura quoi tey rôle rôle rôle école bi ñu mm. bëri naan euh, le fait que ñu bàyyi ko ñu bàyyi ñu ñàkk ko defee seen kër ñëw ba ci école bi di ko defee euh, ñu bëri tamit dal ci kaw prof dal ci kaw école yi selon yow le problème c'est l'école wala xale yi ñoom ñoo yore benn benn benn état d'esprit bi léegi non xam nga ama vidéo bi ñoom ba nga koy def dafa ñëw ko ci biir école bi dañ dem mm-hmm. ñoom benn endroit ñoo xam fan la quoi ñu defee ko mm-hmm. foofu mm-hmm. comprends nga. Mhm. donc ñoom seen mentalité lañ doxee. yow mhm. dem ba ñoom fii peut-être bi fi nekkee ñoom dara du leen ci fekk. Mhm. ñu defee ko foofu quoi comprends donc responsable bi ci parents la. parce que tey jii ñoom si kër lañ jógee quoi mhm. professeur yi tamit ñuy jàngale ñoom si kër lañ jógee mhm. mais ku ci nekk ñoom jikko bi nga am sa biir gaale boo génnee moom ngay exposé quoi si mbedd bi mhm. la c'est pas à les profs comprends nga prof yi ñu def mooy mu li mooy li leen bopp yi ñu jéem ko sotti ñoom seen biir xel pour après ñoom ñu mën ci seen métier di ci liggéey di ci fayeeku dëgg waaw mais loolu amuñu seen seen di ko def ci biir école bi quoi sincèrement parce que ñoom ko kon ñoom seen coobare la quoi waaw mais ñu bëri ñu bëri bi vidéo bi génne dañ doon dal ci kaw ci kaw professeurs yi comme quoi que ni léegi prof yi am na ci ñoo xamante si sax bu ñu ñëwee ñoom ci boppam ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy euh, xaw a xaw a yëg coxataanaale xale yi c'est-à-dire ñëw ma ci tuñ ñu yore sa téléphone. nekk jeune tout ça lan mooy sa jàngat ci loolu. waaw mais on dit li ñuy wax rek prof yi tamit. Mm-hmm. ñoom dañuy am seen part de responsabilité ñoom tamit. Mm-hmm. parce que nga gis ay professeurs léegi dañuy jox ay cours élèves yi du genre ñoom ñii sax des élèves yi mu toll si âge de mm-hmm. la puberté. dañ leen sax dañuy intéressé wu. dañuy intéressé wu man je veux dire ñoom jàngale tuuti ñu à cent pour cent seen i bon. seen i xam-xam quoi. bon dañ la siy sortil cinquante mais cinquante pourcentage bi ñu xoolee profil xale bi. ñu gis ni kii bon c' comme un bon ce qui veut dafa am. leneen loo xamante ne nekkatul wàllum jàngale léegi et tout est-ce nga. Hmm. loolu waral genre affaire yooyu xale bu amee fit. def lool si école rek. Hmm. c'est parce que y a chose loo xamante ne genre. Hmm. am na leneen lu nekk si biir si biir sow bi quoi lu fa ñuul. waaw man loolu laa gis quoi d'après tout. ñu ñëwaat juste ci ci li nga xamante ni moom mooy li ma expliqué sa waay rek. explosion réseaux sociaux yi gën a jox fit booy. waaw mais léegi réseaux sociaux bi day na waar. franchement internet bi téléphone yi. Snapchat yi léegi moom. on dans un monde très très très à l'envers mhm. parce que léegi yéeme xale yi mooy li may wax à dix-huit ans ngay téye iPhone boo xam yow sa sa nijaay mhm. mënu mhm. xam nga léegi yow da permettre de telle sorte ni parce que léegi téléphone dafa garaaw léegi bu ñu wanewul wanewul seen image seen taat wanewul ñu seen i xam disant seen lëf et xam nga affaire yooyu day mel ni c'est nekk ñu instant bii si si si diapason bi te pour man non il faut être clair. parce que booy foog ñu leen wax ñuy dégg tamit bu ñu fi mhm. nekkee di dëgg la je m'excuse parce que sutura dafa baax. dëggantaan mais foog ñu wax pour muy clair. Mhm. parce que wax ji su leerul kon su ko yónnee dañuy mhm. naan parents yi ñoom ñooy daw seen i responsabilité. alors que foog ñuy dégg. soi-disant booy euh, yi nañu inscrire i doom ñu dem jàngi. suñu paree heure bu jotee ñu ñibbi si si farat ak sunna. moo gën booy fa man mhm. affaire vidéo booy ba moo a ba moo ko partagé mhm. parce que je me suis dit man yàlla mu am doom bu jigéen. parce que man sama doom bu jigéen waaw. Mhm. ba kenn ki sëgg sax gars di jéem a xool. si ginnaaw ah. ndax saf na wala saful. mais loolu yéeme na ndax jumboo nañ ko wala poobar <laughs> man sama doom boo ñëwee dama lay ray dem tëddi police. billaay wallaay azim. <laughs> non sa doom la. ne nekkoon sama doom bu yow après man naa ko góobee dem tëddi police mais dama koy def. parce que direct fort na mais loolu. non mais kooku jàngum foom tat fa la ko ah, jëlee. mais na waar mais mais mais mais sama copain moom il trouve ça normal. moom gis na ni que ok amul problème góor yàlla la dañ ko xooy affaire bi mu accepté ko. bon moom mooy li may wax rek xam nga dafa njool ni rek booy bu cool la mais bon esprit bi xaw na des quoi bon franchement su toogee mu ne genre loolu dafa baax peut-être moom comprendre wul parce que doxagul loolu. Mhm. wala duggagu si mais ñun ñi tey ji disant ñun ñuy toog am nañ si tuuti expérience. Mhm. mais loolu musul doon loo xam dafa baax. Mhm. nga am sa doom jigéen mu nekk di partager tey ji du genre. saa bëgg na la tontu. acca acca na ko dal. non yëgal ah, am sa doom jigéen genre xama muy partage ak ay góor si ay nekk xaw ma appartement la xaw ma lu mu doon. Mhm, mhm. léegi yow man je me dis que léegi yow man école Saldia wala fu mu mënti doon. gardien yooyu nekk fa ñoom lan mooy seen métier. Mhm. gars yi lañ leen mën a réeral ba booy génn appartement ak heure. Mhm. dem xam loger nekk fa def ñu n'importe comment mais y a des mhm. choses xam foog état bi tamit. jël si charge ñu xool bu baax. parce que élèves yi daal di mën sax xondu ku ñëw ku ñëw nga ko dinaa <laughs> parce que góor la ñoo si góor góor da ngay bëgg jigéen leen. ñame ñafe sa life. Mhm. mais lépp nag chaque chose à son temps. Mhm. xale nag bu fi dof-dof lu dem jàngi wiiri wiiri jaari ndaar ba seeti ma. man de boo la may turu puso. man boo ngay xam nañ loolu sax si man damay doxaan ba jël fu dara nekkul ragaluma loolu parce que dee dafa gaaw.